papis ñun dispositif bi boo seetloo keroog ci àjjuma waxtaan nañ ci luy bëri ne ndax testé nañ ko ndax évaluer nañ ko euh, tey bi nga déggee ne cas bi amaat na Euh, xëy na sa xel dem na ci propagation ndax wasaara gi waaye est-ce que dispositif bi fi ñu toll nii communiqué nañ ci ba mu ba mu ba nit ñi seen xel yi gën a dal waaw xam nga dafa am dafa am ñaari aspect obligation de communiquer boobu par les autorités mm-hmm. ak intérêt bi population yi am personnellement à titre personnel mm-hmm. pour ta propre défense ta survie sa mm-hmm. njaboot j'espère que euh, c'est voilà pour toi waxtaan nga sa jabar say doom c'est tout le monde qui est intéressé au, a def effort bu bëri pour que les gens suivent. Mhm. parce que les gens sont dañ dañ directement dañ Sénégalais dañu. Mhm. Euh, y benn différence kese moo am. Mhm. Euh, par rapport à la psychose boobu ñuy wax ñuy ragal boo xoolee bu baax les gens sont sereins. gis nga tey reportage yi ñu def yëpp sur les chaînes et tout. globalement majorité mooy li dégagé wu mooy les sénégalais sont pour l'instant nii nii en tout cas sereins mais sérénité boobu dafa am pour man dafa am lu ko lu ko lu ko justifié mm-hmm. parce que y a une euh, expérience bu sénégalais yi am récemment y a l'histoire de Ebola mm-hmm. et, je crois que ça a été mm-hmm. une expérience très fructueuse entre guillemets même bu fekk am nañu si dee mu mu dooleel Sénégal ci wàllu expérimenter euh, sa capacité de, de réplique et que xool naka lay gérer euh, affaire bi te Ebola boo xoolee moo gënoon grave. boo xoolee bu baax. Mm-hmm. il me semble moo gënoon grave euh, euh, coronavirus. Mm-hmm. Sénégal def veille bi. Euh, gérer les frontières yàlla teg ci loxoom comme je dis mhm. complément yàlla mhm. teg ci loxoom affaire bi jàll mhm. aujourd'hui bu amee beneen pandémie wala épidémie bu ñëw di menacer Sénégal à l'image de tous les pays du monde ñoom ñu dundoon ko dina am benn dina atténuer ak ñoo xamante ne xëy na ils n'ont jamais vécu des choses aussi aussi graves wala léegi léegi lan nga war lan la euh, askan bi war a xaar ci autorité yi toujours non mais mooy mooy taxaw guddi ak ak ak bëccëg. Mhm. et euh, euh, Pape man li ci gën a am solo pour man ce sont les bonnes informations xam nga doyen mu ngi koy wax léegi. Mhm. mooy fake news yi c'est-à-dire un pape ji bi day toog naan ataayam bu neex. Mhm. toog jékki-jékki inventé ça à la limite dans ses dans ses délires. mu posté dara wala informé loo xamante ne ça n'a rien à voir avec euh, li nga xamante moom mooy. li nit ki bëgg wala ki protégé lu mu bëgg. am na cas feeñ ci l'histoire des masques. parce que utilité masques yi. ah dafa am nu ko docteur yi expliqué. Mm-hmm. et avant da ngay tu as. waaw nous tous nous pensions. avant que waaw une nga def masque bi rek. Mm-hmm. tu es tu es tu mm-hmm. donc moo tax ma ne 24 euh, sur 24 du ci doy communication bi du doy. et ñu prévoir encore man sama crainte fu mu gën a dem. mooy la mise à disposition des moyens. pour éventuellement. pour éventuellement parce que tant qu'on parle de benn cas ñaari cas. euh, test négatif c'est dans la euh, euh, gérable mhm. dans la mesure du possible aujourd'hui mais imagine pas comme la ñu nekk scénario bu yàlla a xam da ngay fagaru il il faut se parer à toute éventualité gis nañu par exemple le cas de la Chine ñoom presque en une semaine xaw ils ont construit mais hôpital bu ngandee parce qu'ils ont des moyens et ils ont la ils ont le métier ils ont le la technicité. Mhm. mais man ma crainte fondamentale c'est et si malheureusement je ne souhaite pas bu ñu fekkoon xam nga gouverner c'est prévoir. Mm -hmm. et si on devait aller vers cette situation. Mhm. léegi bàyyi ma laaj ko mhm. euh, pour pour continuer ci li muy wax nii. tey li ñu prévoir yépp Sénégal mooy trois hôpitaux yoo xam Dakar la nekk principalement service des maladies infectieuses. est-ce que tey jii waruñu woon a xalaat ndaxte am na tamit information boo xamante ni jot nañ ko mooy y' a beaucoup de de de parce que fi mu ne nii ñaar ñi nga xamante ni yëpp constaté nañ ko ay français lañ. Mhm. ay yu jóge foofu ñëw fii. Mhm. am na ñuy wax ne aussi ñu ci bari ci ñoom bi ñu accès am na ñu dem booru sud. Mhm. ay Ziguinchor ak yooyu ba ci Cap Skiring. Euh, est-ce que tey jii tamit waruñu woon a projeté wu ci loolu. xëy na sax ngir dabi leen wala ngir dem xool leen def benn genre liggéey boo xamante ni sous-marin lay xam ñooñu fa ñu nekk ci ci lan la nekk ak contact bi nu mu toll. Pape dama bëgg euh, ñu cerner tuuti. Mm-hmm. genre épidémie yi organisation bi koy lal. Mm-hmm. ban organisation moo koy lal. waaw parce que euh, dafa am ñu ko seq benn mooy nguur gi ñaar mooy personnel de santé. Mm-hmm. ñett mooy population bi. nguur gi waru garam ci lu dikk situation yi demee nii. mooy mu fexe ba. ñiy faj am jumtukaay yi ñuy war a mun a soxla yépp mu teew. ñaareel bi personnel de santé bi li mu soxla mooy malade bi ñu koy indil lépp loo xam ni daf koy laaj pour mu affronter malade bi faj ko dans les meilleures conditions tout temps protégeant son euh, son personnel mu war ko mun a def. Mm-hmm. mais boo xoolee ñaar ñooñu pour ñu mën a def seen liggéey correctement. Mhm. dafa am benn beneen nit muy doomi aadama bi population bi. Mhm. population bi boo ko xoolee ci biir dafa am benn pàcc bi ñi nga xam ni seen métier mooy tas xibaar. Mhm. wasaare ko ci biir. ak ñi nga xam ni ñooy consommer information bi. te di population yi nga xam ni fu nekk dañ fay dem. Euh, boo jëlee population boobu. dafa am ci période yu jamono yu mel nii su amee li ñu naan changement de comportement il faut que nit ñi xam ni la ñu tàmmoon daan ko doxalee daan ko jëfee. mënatul wëy mënatul wëy. Mhm. mais pour ñu xam loolu. Mhm. il faut que information bi disponible. ba pare jot egg fa mu war a egg fa mu war a yegg. Mhm. personnel de santé bi day daal di war a lënkoo ak taskatu xibaar bi pour wan ko ni ko feebar sàngam. mesure de prévention yii la. lii mooy tax nga jàpp ko lii mooy tax nga mucc ci. mais su ko defee taskati xabaar bi dina am source fiable d'information. mais il faut que personnel de santé bi tout comme ministère bi. organiser wu de sorte que. quotidiennement dañuy am moment boo xam ni ñoog presse bi dañuy daje. Mmh, mmh, ñu jox ko la bonne information. Mmh. moom mu mën a wasaare ci liggéeyam. mais il faut aussi que population bi bañ a toog rek di taataan information bu mu dégg ak fu ne. Mhm. parce que dafay am ñoo xam ni ñoo yeyoo yeete. Mhm. bu xibaar bi jógewul foofu bul ko téye. Mhm. bul ko gëm. parce que soo ko gëmee dina la dugal ci tooxi doona am na ñuy toog commencé di wax naan waaw du fi dugg euh, virus bi mënul euh, évoluer ci fu tàng mënul évoluer ci fu nangam. mais ci ban base lañ ko def. amul benn étude scientifique. boo xam ni tegal nañ leen ko. mu firnde lu ne mel. kon situation yu demee nii su amee. kenn ku nekk dafa war a. jouer rôle am. jouer partition am te ñu bañ ni journaliste bi su ma ko joxee information daf koy wisaare ci neneen nu ma bëggewul et c'est le journaliste aussi am changement. ligne éditoriale bu muy war a indi parce que mbir dafay am foo xam ne bu fa tolloo mhm. c'est un patriotisme qu'il faut mhm. dootuma ñëw di titrer sur le nombre de cas mhm. parce que la titraille aussi dafay tiital population dafa nekk psychose day créer psychose bi mais par rapport à communication bi parce que gis nañu d'autres exemples par exemple euh, dañu créer ay centres ay centres yoo xamante ne ay épidémiologistes ñoo si nekk cest des docteurs. Mm-hmm. des spécialisés. Mm-hmm. ñoom ñooy nekk dans les centres yoo xamante ne toute personne ku ci woo. Mm-hmm. di nga am déjà accueil bi. dalal la expliquer la anticiper déjà même sur ce qu'il pourrait avoir en termes d'information parce que le journaliste que que euh, qui qui donne l'information il n'est pas un pro de la de santé xëy na à partir de li ñu koy jox c'est sur ces informations. loolu lay relayer or. quand il y a un centre c'est des spécialistes c'est des c'est des c'est des médecins ñoom ils sont en affaire bi. Mhm. fekk population yi xam ne am nañ am nañ interlocuteur peut-être. Papis euh, question bi te gars que nit ñi am nañ intérêt bi ngay wax ni dafa leer parce que ñoo ngi envoyé ay messages yu bari mais ku kenn ku ci nekk sa zone moo lay interpellé. Mhm. Mhm. fi ne nii kenn ku ci nekk moo ngi naan sunu zone ndax am na euh, dispositif d'urgence boo xamante ni capable de prendre ça en charge donc li nga doon wax léegi ci l'obligation. autorité yi ñu amee benn offensive communicationnelle ci moment bi tam je pense que ne c'est important pour ñu ngir ñu parce que parce que je pense que euh, yàlla moo ngi ñu sutural mm-hmm. sénégalais ñàkk gu ci bakkanam ba ci ñaar ñi mu dal tamit ñàkkuñu seen bakkan te ñaari ñi ñaar yëpp dañoo ñëw ay cas importé lañ tey jii euh, euh, lan la ñu mën lan lan la askan wi war a mën a xaar kon comme information au-delà des mesures préventives yi nga xamante ni war nañu ko am waaw man man li ma si gis mm-hmm. par rapport ak bu ma observer euh, toute la situation mm-hmm. c'est vrai que c'est très inquiétant man au au première fois bi ñu waxee par exemple ils ont deux ou trois centres yu ñu prévoir pour euh, jël en charge les euh, les potentielles euh, victimes mm-hmm. man mm -hmm. man j'avais tiqué là ma ne par exemple un pays où il y a par exemple 16 millions de, euh, de personnes comment est-ce qu'on peut prévoir juste trois centres man ça m'a posé problème donc man foofu la affaire bi nekk c'est-à-dire il faut communiquer pour faire en sorte que population bi wax ñi nga xam la ñuy euh, wax en termes de zone mm-hmm. que ñu justifier expliquer est-ce que bu fekkee ne en termes de kilomètres mm-hmm. da nga sori centre bi est-ce que am na euh, dangerosité mm-hmm. wala sori ko jege ko du que ça c'est une question technique. oui dinañ si ñëw ñoom ñoo ci war a tontu ak mm-hmm. surtout euh, maillage du territoire bi. Mm-hmm. mais beneen question bi aussi bi nga xamante ni askan bi tamit xëy na dina nekk njàqare ci ñoom mooy le personnel soignant. mooy ñi nga xam ñooy nekk au contact comme fële ci Roi Baudouin. Mm-hmm. ñi nga xam ñoo jëloon en charge dans un premier temps cas bi ñu mujjee am nii. ak fi muy nekk nii ñooñu aussi. Euh, ci ban état d'esprit ak. ndax du ñu mënuñoo frôler stigmatisation sax souvent parce que bu ñu xamee ne foofu ndax man démb rek ñun euh, suñu gan bi ñu amoon ci soir d'info comme salon de l'agriculture la jógee am na tey fu ma jaar ñu ne ma mais yow nan nga ko mën a nuyee nuyee bu bi kii bi jeexee donc est-ce que loolu tamit euh, ci ni ñuy partager information bi ak ni ñuy gisee ñooñu nga xam ñooy nekk au contact des malades mm-hmm. waaw euh, pour rassurer population yi mm-hmm. système de santé Sénégal amul système bu ko gën décentralisé. dans les fin fonds du Sénégal. système de santé bi am na fa représentant même au niveau de la case de santé. et te buñ ñu fàtte ni aussi mayage bi ñuy def ci période yu mel nii. y a c'est la remontée de l'information. parce que gox bu mu mën a doon poste de santé boo mën a dem les principaux signe yi nga xam ni partagé nañ ko ak ñëpp. fi mu ne dans les coins les plus reculés les agents de santé xam nañu lépp. xam nañ am nañ information bi. Mhm. suñu jànkoonte ak signe yu demee noonu. Mhm. immédiatement dañuy remonter information bi. Mhm. et il y a les autorités administratives qui jouent le rôle. pour relayer très rapidement ce type d'information au niveau de central. donc je pense que de ce point de vue. il faut que les gens se rassurent. Euh, l'efficacité du euh, plan de riposte mm -hmm. ne réside pas ci le nombre de lits mm-hmm. mais ça réside plutôt à la rapidité mm-hmm. de la prise en charge des cas mm-hmm. ak l'efficacité bi ñuy def ci prise en charge de cas yooyu soo xoolee ce qui est rassurant pour le Sénégal cas yu ñu fi jot am yëpp mais au bout de deux jours trois jours stabiliser nañ malade bi pourtant soo xoolee ci yeneen dëkk yi ñu ëpp doole dañuy faatu dañuy faatu. Mm-hmm. la maladie s'aggrave. Mm-hmm. kon ça veut dire quoi que malgré que ñun foyer épidémique bi nekkul ci suñu dëkk. Mm-hmm. mais am nañ ñoo xam ne en terme d'infectiologie. xarañ nañ xarañ goo xam ni. mën nañ riposte dama la wax sànq ci njalben ni la Sénégal dafa am habitude di gérer ay flambées épidémique depuis les euh, avant bien avant les indépendances. buñ fàttalikoo ñi xam histoire. Euh, pest bi jaaroon na fi euh, choléra jaar na fi jaarati fi dans plusieurs zones te benn bu ci ne am na plan de riposte bu tegoon bu tax ampleur ba mu waroon jël jëlu ko mm-hmm. bii tamit mm-hmm. dispositif bi ministère teg état du Sénégal teg ko mm-hmm. mën nañ ci dalal xel parce que bien avant même épidémie bii di am bul fàtte ni ministère de la santé ci ay banqaasam dafa créer benn structure boo xam ni presque dafa meloon ni kuy waajal lu demee nii. les urgences sanitaires. bu ci mu ci mën a doon mu xam naka la ciy taxawee. ak yan moyen la ciy taxawee. buñ fàtte aussi ni am nañ SAMU. ci dispositif ministère euh, ministère bi. Mm-hmm. avec un numéro facile. le quinze 15. Hmm, te fi mu ne nii wut nañ budget 1 milliard 400. exactement mettre ko à la disposition. beneen beneen aspect bi mooy. Hmm. le service d'information et d'éducation pour la santé. Hmm. SNEPS seen numéro vert. ça fonctionne et il y a du personnel justement soignant formé qui maîtrise parfaitement toutes les questions. à même de répondre à toutes les interrogations de ceux qui oui. seraient tentés mais doyen il faut que aussi ñëpp ñu ñu bañ a xam ne aussi ni nga koy waxee nii c'est vrai c'est c'est le principe papis <laughs> mais il faut que ñëpp gën a takku c'est-à-dire qu'il faut que a yomb. parce que souvent gars yi dañuy jooytu ci loolu. non seulement ça man Pape dama bëggoon à ça. Mhm. à la rigueur euh, du combat. man mhm. j'appelle mhm. euh, ay incantation ay si wax. par rapport à nos cultures nos parce que gis naa si réseaux sociaux yi ça va les sens. façon ñaan bu nekk boo xalaat bu nekk les gens y a certains qui pensent que boo ñaanee da koy <laughs> en tant que que spécialiste nga prononcé wu pour le cas du Sénégal. Ah, xam nga Papis pour ñu def diggal ak tere way way kër docteur yi. Euh, Papis gis nga bu ñu nax suñ bopp gis nga àddina ku nekk ak sa cër. ku nekk ak sa cër mais ku nekk bu yemee ci cëram bañ a dugg ci cëru jàmbur bëgg fa indi ni man mën naa faj walla am naa nu mën a faj ay ñaan fi lañ ko fekk mais dafa am loo xam ni xoddiku balaa ngaa lakkale. soo fi toogee naan defal yaa nangam yaa nangam wérdal li taril nangam dina la musal nga xëy suba mu ne xës ci sa kaw. looy wax sëriñ bi nax na ma walla sëriñ bi waxul dëgg. Mm, nga dem. Mm-hmm. beneen problème ngay indi. parce que li tax euh, cas mel nii. Mm-hmm. malade bi war a teel a wu ci centre de santé bi. mooy pour ñu mën ko sauver. parce que su toogee ba su feebar bi aggravé wu. yeneen signe de gravité yi feeñ. ba commencé ko lottal. mais bu ñëwee. faj ga day gën a métti. day daal di nekk cinquante cinquante. au lieu mu nekk quatre vingt sur sur cent. jërëjëf. jërëjëf euh, doyen Assane Touré moom xam-xamam nag dafa wa màcc journaliste la waaye xam-xamam dafa màcc ci li nga xamante ni moom moo xew jamono bi Sénégal muy euh, feebar yu mel nii su amee wala wàllu santé publique sax waaye feebar yu mel nii nag yàlla dafa dogal mu am ci expérience wax ci nan la ci euh, way taskatu xabaar yi wala képp koo xamante ni yaa ngi utiliser les médias de masse wàllu communication war a taxawee te lu am solo la ndaxte information bu baax bi dinañu permettre ñu jël la meilleure décision euh, di gërëm papi sa xaaj bu njëkk bi jeex na ci soir d'info euh, doyen Assane dañuy ñëwaat ak yow ginnaaw euh, publicité waaye surtout ginnaaw jotaayu xibaar bi nga xamante di dinañ ko seq ak soxna Fatou Kiné dem soxna Fatou Kiné bismillah mangook ma lay nuyu bu baax a baax Pape Djibril Fall kon xibaaru marax yi ni nga ko waxee rek ci lañu ñu fas yéene kon jublu mu mel